xarit yi comme ni ko faral di defee rek noonu laa koy defaatee te ñu ngi fii benn dëkk ñaari gaar muy Thiès euh, ci fesraay bi nga xamante ne ñoom ñoo ko woote nee naa la Thiès bu ñu wootee dafay neex ba tax na tey artiste boo bu la réer rek mu fi nee naa la ñi ak ñi nga xamante ne mënuñoo ñëw seen xel ak seen xalaat seen xool lépp ngi fi ba tax na damay def lu dul sama xarit yi sama àndandoo yi sama caméraman yi ñaaw li ngeen topp ma ci biir ñu xool suñ daanaan yeeg suñu mag yeeg suñ tonton yi suñu rakk yeeg suñu nijaay suñu artistes yi ñu xool ni ñuy wàccee fii tey tamit ba zéro nee naa leen ak për rek dara du yomb ba tax na ngeen teg seen baaraam topp ma ñu doon xool ci biir ni muy mel nga xamante ni mooy ñag baalo Seydi Kumba Seck Seydi Nafi mu def dara bu baax ni def weeram bu saf man lii dama koy bëgg chaque jour man leen man damay bëgg lii ñag maa ngi lay nuyu di la ziar di la jaajëfal kanam gi nga fas laa bëgg a fecc ko nga jàkkaarloog àdduna maa ngi lay fay nuyoo di la bu baax a baax baax a dama xaw a sonn jóge ci yoon bi moo tax ma xaw a kii nii mais fa sama kanam gi de waaw mais ñang xam nga ne yaa ngi yëngal àdduna yow tamit non bokk naa ci ñi koy yëngal naka ngay gérer euh, euh, sa ñaari soxna yi soo ñëwee ci Kumba Seck de fas kanam boo ñëwee ci Nafi nga ne neem. non samay soxna la ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk ak nu may dund ak yow rek xam nga mag mun a yaa xam ne nga tojee sa bopp jinax waaw Kumba sama xarit la sama jabar la Nafi maa ko bëggal sama bopp nekk sama xarit nekk sama jabar. dégg nga yaa ko ah, sa man daal man daal yéen a ngi noonu rek. dëgg la ku ngeen bëgg daal mooy loolu. yaa ngi naan ko kon. <laughs> waa ñang ah. euh, ku ne xam na ne nag temps bi day gàtt du fi xaj ñang mm-hmm. euh, gis nañ ne tubaar fakàlla macha allah euh, li nga li la gars yi di laaj yaa ngi koy joxe macha allah léegi ñu bëgg xam théâtre bi ci naka la la feeñoo ñang théâtre bi xanaa juddu ji rek parce que man kër gi ma juddoo la ko man Moussa Sène ab sa sama cousin la ñu bokk benn kër ñëpp ñu juddoo ci biir kër gi yaroo fa màggee fa cinéma di suñu àdduna kon foofu boo fa gimee rek da ngay def théâtre par force doo doo xam sax li nga doon yow waaw da ngay màgg rek ñu wax la ko yow da nga ci juddu màgg ci ñun dañuy fecc dañuy tëgg dañuy woy lépp la ñuy def rek loolu mujjee suñu yaram rek ñu def ko ñu gis ne ci Pod et Marichou ci nga gën a fësee daal ci nga ci la la àdduna xamee mun nañ wax ne waaw waaw ci la ma àdduna xamee que sénégalais yi ci théâtre la ñu gën a miir di ko seetaan mhm. mais man avant euh, may def Pod et Marichou dama nekk suma quatrième wala suma sax cinquième film parce que tableau ferraille def naa ko def naa madame Brouette def góor góorgóorlu xam nga l'appel des arènes en même temps doog a ñëw nag ci Pod et Marichou na fi ci biir ah mais yàgg naa ci biir cinéma. mais mun nañ xam tey ñang baala boo ñu doon wax naka nga def ba dugg ci série Pod et Marichou ba ci euh, na fi tey mun nga ñoo wax naka la jéego yi demee. non parce que dugg ci mooy nekk nitu cinéma waaw parce que casting la ñuy def. nga dem fekke casting bi ñu xool la jël la man na yàlla def def ma sax casting parce que def ma casting ñi nga xamante ne nii ñoo geere casting bi dañ lay xam xam li nga mëne ñu woo la téléphone nga dégganteeg ñoom ñu ne la pareel euh, say jaloo a ngi ñëw sa kaw nga maîtriser dialogue yi ñëw joué ça noonu la demee mais man jour jour casting bi ak heure casting bi sax yëguma ko mais après buñ la téléphoné rek capté la dañuy xam ni yow mën nga lii ñu jox la ko après yow nga joué rek loolu laa duggee mborodi daal noonu nga duggee mborodi di cartonné tubaar fa kaal yàlla na jëm kanam amiin amiin ñu ñëw fekkaat la fii Thiès nag tey tamit tubaar fa kaal la ak mhm. sa nawle rek suñu nawle artiste yi tey fii nu mu nar a mel waaw fii xam naa ne dina neex moo tax bi may ñëw lu oto bi daw ma xeeb ko parce que euh, ñun dafa nekk suñu deret bon say mbokk bu ñu xewlee woo la dafay neex yàlla xam na ni fi mu nekk nii euh, maa ngi doon répété léegi ak Pape Diouf bërki dem ba léegi man ak ku ma sekk ak sama pour concert bi mais lii nii mënuñu ko bàyyi ginnaaw moom dafa pare tournage midi rek ma jiital ko maa ngi nii di ñëw ñoom waaju baax ngi topp ci ginnaaw bi ñëw bon nga xam ne mbir mi su fii ñu ñëwoon ni tey liggéeyuñu ñun ñoo fiy jiitu parce que dañ ko bëgg te ni ñu fi woo suñuy nit lañu te ñun suñu leen wooyee dañuy ñëw waaw ñang baalu est-ce xam nga leen xam nga ne suba succès dañ fay tasewaat waaw loolu de am na succès de moom maa nga fa man hmm. waaw wax dëgg yàlla waaw maa nga fa parce que méga enjoy maa def public maa def publicité bi man ak sama waa kër tamit war nañ fa war a yéeg benn 7 minutes wala 10 minutes am lu ñu def tamit.